waaw effectivement dama ñëw fii taxawal fii euh, le ministre El Hadj Omar Youm bi nga xamante ni mooy suñu coordonnateur départemental de l'APR dans le département de Mbour taxawal ko fi euh, parce que bu soñoon tey teew fi mais xat-xat yi moo ko téye euh, ci biir waxtaan daal li ma ci xamal ñi nga xamante ni ñooy organiser mbir mi di ci remercier ci féliciter ñi ko organiser yëpp président yi nga xamante ni teew nañ fi nekk ci dans le domaine de l'élevage yëpp maa aussi li nga xamante ni wax naa ko daal mooy. agriculteurs yi ak éleveurs yi euh, euh, euh, ak éleveurs yi war nañu juboo war nañu nekk benn te war nañu mën a dimbalante pourquoi parce que foo fekk béykat day soxla fumier organique fumier organique mooy lan neefere bi nga xamante ni ci gétt yi moom la fay nekk toujours ñoom dañu am problème pour génne ko mais bu ñu waxtaanee ay agriculteurs nañ leen ñëw ramasser leen ko nettoyer ko ba ñu set.

Donc, ce tax parce que euh, dañuy am ay produits qui sont ni da nous ci éleveurs yi ñëw engrais enrichir suñuy tool bu ñu a taxaw jox pour du problème il suffit seulement que les deux organisations surtout les deux ministères collaborent bien dans ce secteur là pour créer une intégration de ces deux activités